sunu boroom jëlee leen fii te defuñ suñu boroom lu tax mu jëlee leen fi ñun ñim fi bàyyi itam defaluñ ko lu tax mu bàyyi ñi fi lépp rek li fàttali kon ñoo ngi koy sant bu baax a baax ci ngëneelam yooyu mu ne defal njëkk ñuy lim délégation bi yi nga xam ne teew nañ fi ngir jëm yàlla ko bopp ak Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul bis bi dafa am ay jëmm yoo xam ne nëga ni daaw ñi ngi fi woon sunu boroom jiital leen ñu toog ca këru dëgg di fa xaar ñu leen doon ci rendre hommage nag bokkoon ca jëmm yooye sëriñ Sàmba Kans Lo nekkoon xalifab sëriñ Cheikh Asta Walo moom Mamour Diarra borom Cham sëriñ Abdul Xaadir ma nga ne le jiite mbooleem ñu aju ci sëriñ Sàmba Astu Lo teew na ci jataay bi ñu doon rendre hommage it waaye juru sëriñ Saliou Mbàkke mi taxawal bis bi de sëriñ Mamor Lappe moom sëriñ Muudu Mahmoud moom Mamor Jaara borom Cham waaye di ci rendre hommage ba tey sëriñ Abdourahman Mbàkke nekkoon xaritub sëriñ Saalihu Mbàkke waaye nekkoon xaritum ñëpp rek ngay wax sonnoon lool ci liggéeyal Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul nekkoon ndaw daan ànd ak ñu jataay bi at mu nekk yàlla dogal it sunu boroom jële ko fi ñoom ñooñu nag jàngal nañ leen alxuraanul karim ak xasida ak salaatu ala nabi yéene leen yool bi soxna Faati Mbàkke mi ngi nii teew ak sunu yaay soxna ay dara ak jëwriñ Libaas Fall ñu ngi nii teew ci jataay bi ngir fekke si rendre hommage sëriñ Abdourahmane Mbacke sëriñ Saliou nag nee na mi ngi sàkku ci jataay bi fu ay toog nga jàng fatiha bu sell fukki xulu ak benn tajadi ko salaatu ala nabi gooman nga ñaanal leen suñu boroom jotal ci yool bi ñu àggale kàddu yi mu mel ne kon jataay bii ni ko sëriñ yu baaxoo di defee at bu nekk mu tànn ci kenn ci jëwri ni Maam Mor Jaara borom saam yi darajaale ko bis bi ren ji nag mu tànnoon daaw mu def mu mu mu ko sëriñ Mor Soxna xalifaab Maam jaar Jaara borom saam ren ji nag mu woon ko sëriñ Mor Bousso Xureeja di ñaareelu doomu Maam Mor Jaara saam ak njaboot tamit teewoon nañu fi waaye xat-xatu jamono ak daje gi moo waral ñu yeeweekuwaat léegi amoon yéen dellu siwaat waaye xamuñ danañ fekk jataay beeg boobu ak léegi sëriñ Bousso bi mi nga xam ne mooy xalifa sëriñ moor Mor Bousso Xuréeja yabal na fi sëriñ Moustapha Mbacke mi topp ca moom ca kër ga ak sëriñ Baara Mbacke ak sëriñ Maam Mor Jaara Mbacke ñu ñoo teewoon jataay bi waaye sëriñ saalihu mbàkke ñi mu bokkal sëriñ Mamor Lappe ñoom ñépp teew nañu fi man nañ cee tudd sëriñ Abdul Latif Mbàkke ak sëriñ Muudu Mbàkke man nañ cee tudd itam sëriñ Moustapha Mbàkke waaye mën nañ cee tudd ba tey sëriñ Mbàkke Faajama kon ñooñu ñoo ñi nga xam ne teew nañ ci jataay bi ànd ak sëriñ Saaliwu bés bii kon defe naa ne dañuy daal ñaan ñaan gi rek daal àggale li des ci tur yi ñu daal di koy li mu daal di jeex. monsieur le maire Serigne Cheikh Dieng ñi ngi lay ndokkeelaat bu baax di la ñaanal askan wi kontaan nañu xeeboo bésu kenn tànqamloo bésu kenn ku xewle nga ñëw yàlla yàlla guddal sa fan yaa ñi nga àndal ñëpp waaye nag sama sëriñ. bàyyi koo Kébémer sëriñ xaadim mbàkke asnal xaadim sëriñ xaadim moom sëriñ Musayn moom sëriñ Moray sa moom sëriñ Baara moom sëriñ Touba di kenn ci yoon wi fees dell bés bi sëriñ Saliou di def ci caaro yi noonu la koy defee ci Kébémer sëriñ Saliou bàyyi ko caaro yi ànd ak ñi mu àndal ñëpp fekk ko fa tabax jumaa ba mu àgg bërki démb lan ko fal imam ca Kébémer yàlla na yàlla guddal sa fan waaye nag jox leen ma ndaw ñi ma def ci ñoom la Serigne Touba defoon ci mag ñi Serigne Cheikhouna sa maam may dégg-dégg Serigne Saliou may dégg-dégg Serigne Touba Serigne Saliou rek ko ko dégg Serigne Touba lu mu wax way nii Saliou lil xaadatul ujoodi wal ma Saliou bi tey la jiitu way nii Serigne Saliou Serigne Cheikhouna nga am liggéey bu am solo booy def Kébémer Touba réew mi bitim réew bi nga toogee léegi da ngaa saqat Serigne ba nga jégal ma ma ni talul dara ndax liggéeyal Serigne Touba yal na yàlla gudd sa fan xame nañu ci yow Serigne Touba xame nañu ci yow Serigne Saliou fësal liggéeyub Serigne Touba fësal liggéeyub Serigne Saliou yàlla na yàlla guddal sa fan Serigne naa moom Serigne Moustapha Saliou ñàkk caaxaan moom Serigne Saliou yaakaar naa ni guddi na waaye nii la war a mel Serigne Saliou la classe moo woote Modou Gueye jërëjëf président convention citoyenne neneen ñi ngi lay sant ñi ngi lay gërëm ab ubbi la waaye Serigne Galasa nga nale kenn ku ci nekk. am na foo xamee ni mooy rek hymne national ba Serigne Gassoo koy rek waaye yàlla na yàlla guddal sa fan monsieur le maire askanu Thiaroye Serigne Saliou Lalas jërë ngeen jëf Baye Cheikh ñu woy liggéey bi jégaluwaat kàddu yi bu baax lépp lu ci dëng ñoo xam ne ab jaama matul lu ci jub ñu xam ne Serigne Touba ñàkk moro Baye Cheikh kàddu gaa ngo wax ci sa diggante ak président Mamadou Gueye du jafe tey ndax li ko waral mooy moom Baye Fall ki dugg si léegi daf koo firnde ndax sëriñ maam Cheikh mu toog baayam sëriñ Cheikh Fall Mbawor mi nga xam ne ba ma jàkkaarloog moom dama ko ni daawatul xaq danoo woo xaq dafa xooloon président mu ma Gueye ba mu ñëw mu ni ko yitte ji ak yéene ji taalibi taalibi taalibi ji da koo gën a kawe keroog ba may dem def ni ma sëñ Fallou ma ne ko Mbàkke mu ni ma dénk naa la Mamadou kon moom bu dugg seen bu ñu waxul woon sax bëgg nañu ndax ak dugg seen sëriñ bi ñu ngi lay ñaanal yàlla guddal sa fan ca defal la tawféex ñu ngi lay jox sa yéeguwaay ci ñan yàlla yàlla na nga àgg ci àgguwaay ba ci barke yonent bi waaye maam Cheikh yow yaa ma njëkk a daaneel tey du ma présenté président Mamadou Gueye xam nga lu tax wa ma arsalnaaka ila rahmatan lil alamin te danga nga ni yërëm jaam ñi képp la def mu yell nag ci ñaari wàll ahmadoo donn ca mooy taalib bi ahmadu mamadu lañ ko duppee waxtaan ci moom tey day jafe ndax ya nga daje sotti ci moom ku mu nekk ci yow yaa gën ku dul moom yàlla dogal tey jii yéen ñi miin ngéewul yëg ngeen tey jii ngéewul gàmmu gu rëy faam xam nga lan la ma wax sëriñ bi li ñu boole man ak moom dafa ëpp doole deret ma ne ko lu tax mu ne ma li ma yaakaar ci maamaam yaakaaruma ko ci deret bala maa dem fenn sëriñ bi bi mu ma woowee man ak moom danoo waxtaan président Mamadou duggee sëriñ Saliou teg na la fu rëy dafa ma woo ni ma sëñ Fallou ma ne ko Mbàkke mu ne ma bis bi ba ma ko njëkkee def président Mamadou Gueye laa ko darajaale jaale mu ñëw ci ànd ceeg man ba mu jeex waaye nag taalibe bi sëñ Tuubaa laa ko jàppe daan ni ma ndax dafa bëgg maire bi ma ne ko waaw waaw mu ne ma ak feneen ak feneen sax dana ko am ma ni teg sama xel dem ci la ma sëñ Tuubaa waxoon sëñ Tuubaa laa wax de sëriñ Cheikh Sidil Muxtaar la ma président ma Gueye yónni ci moom xam nga chef de parti dafa metti chef de parti du délégué de quartier de chef de parti du monsieur le maire de chef de parti du maire commune de chef de parti du du maire département de chef de parti lu rëy la ndax parti national la ma toog ak sëriñ Cheikh Sidil Muxtaar ak jàkkaarloom baag yàlla ba tax na du xool keneen ma ñëw di waxtaan ak moom ci président Mamadou Guèye mu ni tekk di ma déglu ba ci yàgg mu ñuurumt googu muy def ca lu mu wax mu leer nañ ca ka muy waxal ci kam dendal mën na koo bañ a xam ndax ku ko yitteel rekk la koy déey Mbàkke Balla di nuyu axlu Mbàkke yi ronu baas bi yëpp di nuyu it maam Cheikh Ibrahima Fall mi nga xam ne teew na si jotaay bi ci jëmm sëtam bii ñu di ko ziyaare ni ñuy ziyaare suñu mbokku taalibe yi fi toog di jàngkatu xasida yi ak ñi nga xamante ni si ñun ñoo maase nag ci wut ak taalibe sëriñ Fall wax na ko daanaka fii mënoon nañ fee bañ a yëkkati kàddu ndax tey jii ñëwuñu fi ñëw taxawaayu politique dañ fee ñëw pour wattu kóllëre gu ñu Serigne Touba boole ak Serigne Saliou Mbacké Likhlass mi Serigne Saliou Mbacké li tax ma naan Serigne Cheikhouna moomu na ma na ma xaar li ma boole li ma bëgg mu boole ma ak moom moo ma boole ak sëriñ Saliou mooy di waxtaan yàlla fe fekkeloo ma waxtaan woowu may yëg Serigne tubaa ci waxtaan woowu te loolu xam naa ne ni may dale mooy nit di wax la muy wax dëggu ci moom jëm ci sëñ bi ndax man loolu rek mooy sama sàkkuteef amul leneen lu ma ñor moo tax ba doomu aadama lu mu am ak lu mu mënti doon dama ko ko yéene ndax man sàkkuma lu dul ngërëmal sëriñ Touba tax na ba. ku ma gis may jëflante kuñ jàpp ni kii dafa am lu ñuy xëccoo nañuy jëflantee daf koy jaaxal ndax la muy yor dama ko koy yéene lool ndax damaa xam ne Serigne Touba denc na ma tax ku ci ne lu di sàkk yàlla na ko ci yàlla dimbali defal ko ci lu kawe njortam ndax damaa gëm ni sama cër moom Serigne Touba ma kaa dencal ma gëm Serigne Touba nag te wóolu ko yaakaar ko te doyloo ko moo tax sëñ Fallou li mu wax léegi nit mënumaa woowe mbaa mu may dàkkantale mbaa mu may dëkkal ci leneen lu may saf lu dul ne kii taalibe sëriñ Touba Mbàkke maa ngi lay ñaan nga ñaanal ma Serigne Touba téyal ma sama taalibe ndax leneen lu dul loolu bu ma ko dee sàkku it ut ci ak taalibe moo tax ma koy wut lii ñuy wut ñuy wax ay maire ak di wax président ak leneen ak leneen luñ ci nar a am. mu nar a fell dara ci suñu bi bëgguñu ko te yàlla bu buñ ko gis ndaxte gëm nañu suñu taalibe moo ñu mën a jariñ fii ak fa ñu jëm kon buñ naree dégg monsieur le maire ñu naree dégg monsieur le président buñ naree dégg leneen ak leneen yàlla na ànd ak suñu bi te buñ koy delloo mu bañ suñu taalib Mbàkke lii mooy lu ñu boole ak moom mooy fekk ko ci ab baas muy waxtaan ñu yëg Serigne Touba ci li muy waxtaan gis ne kii ndaw la loo xam ne. sëriñ tubaa tëggal na ko boppam defaral na ko boppam ni ko soobee ñun ñii ñu war a gis sëriñ tubaa ci moom war a yëg sëriñ Touba ci moom kon Mbàkke yàlla na la Serigne Touba sàmm sàmmaaleel la keneen ku mel ni yow ak keneen kuy sàkku li nga yor sàkku googu nag mooy lii kenn ci suñu mbokk taalibe doon waxtaane sànq moo di ne de yéen ñi ñun amuñu lu leen ëpp ab tawutuñu ko waaye nag taalibe yi li ñuy li ñuy dof dof dof ba mel ni man tey jii ku ñuy topp dañuy fekk ñu gis ci yow ne li ñuy wut Serigne Touba dafa nekk ci yow bu fa newul nag dinañ la wormaal dinañ la jox gëdd dinañ la jox cër waaye nag mbàkke ndox ba li ñuy wut ba nekkee ci yow kon ñu ngi lay nuyu bu baax di la siyaare kàddu yi du bëri ñu ngi nuyu suñu mbokk taalibe yi ñu fi fekk yépp ak ñi nga xamante ne si fekk nañu fi di nuyu monsieur le maire di ko jox wàccuwaayam di ko ñaanal yàlla kàttanal ko dëgëral ko te yàlla réussiral ko mission am ndaxte commune bii ñu nekk moom moo moom la yàlla dogal mu jiital te bu ñu sañoon mission am dina ko réussir ndax réussitam mooy njariñ ci askan wi te ñun sàkkuñu lu ëpp njariñ ci askan wi kon monsieur le maire yal na la yàlla dooleel yal na la yàlla kàttanal ñi ngi ñaanal it ñëpp ñi nga xamante ni si ñëw nañ fii ci guddi tey gii seen ñëw boobu di seen faju aajo sëriñ bi muy feddaliwaat suñu kóllëre ci yow di feddaliwaat suñu cofeel di la seereel ni day ñun day dañ lay yëg ci suñu biir xol ndax dañoo xam ne sa xol bii leneen new ci loolu sëriñ Touba te keneen ku fi nekk fii ci ta mbokku taalibe yi ñu jëflanteel te am leen teg ñoom xam nañ ni ku ñu ci jàpp sëriñ Touba tax ñu lay jàpp ndaxte nag utu ñu bëgguñu leneen lu dul sëriñ Touba kon ngeen jot suñu vidéo nag foo leen toll ngeen di abonné si Tawfekh Production ngeen mën a jot moo leen vidéo boo xam ne a xam